Médina pour euh, fekkee si bés bi. bon motivation bi naa wax parce que lii c'est normal Sénégal a ko bokk ñoo ñëw vacances pour profiter libre ak suñu xarit yi ak suñu morom yi xam et surtout suñu morom jour yi bon Pathé Ciss moom invité et voilà su ma ko yëgoon sax dama xaar moom invité ma damay damay ñëw parce que Médina tamit Sénégal la bokk voilà. suñu morom yi fi nekk suñuy rakk yi nga xam ñun tamit si ñëw fii bëgg bëggloo na leen ne leen et voilà ça fait plaisir. alors naka vacances yi euh, bi nga ñëwee ba léegi lan mooy say principale activité. bon je dirais que instant yii defuma guma defaguma dara teel a commencé en juste euh, dama demoon Casamance fii nga géejoon naa fa de deux ans comme ça et voilà demoon naa foofu tabaski tabaski nañ ci jàmm jot na on va faire des so la. saison bu contrasté nga am euh, voilà ñëpp waxtaan ci sa say performance mais évidemment j'imagine que sur le plan individuel et collectif war nga am déception ndax sa équipe dafa wàcc en Ligue 2 loolu nan nga ko dundee. Bon, sur le plan individuel, eh, ouais, individuel, je dirais que je suis un peu satisfait parce que voilà, milieu offensif, milieu, milieu de terrain, la jouette et voilà, statistique, mais je ne suis pas satisfait. mais bon euh, euh, collectivement ñëpp gis nañ euh, saison bu ñu def c'est pas c'est pas remarquable mais bon lu ñu lu ñu liggéey la ñu maintenant on va juste se concentrer pour venir en Ligue 1. J'imagine que l'image qui a marqué aussi tout le monde c'était vos pleurs pour la CAN. Ça a été aussi une grosse une, une grosse déception je pense. Ouais, la CAN hein, ça a été une déception parce que voilà on, pensait qu'on allait on était là, on on partait là, on, ouais, on, on, était, on, était, on était allé là-bas là pour, euh, pour aller en finale, ou bien minimum euh, demi-finale. Mais ça n'était pas le cas. On, euh, aussi, euh, il y avait une bonne équipe en face, le Côte d'Ivoire, qui a été championne. Mais qui a été champion du monde. Et euh, voilà, maintenant, on sait qu'au Sénégal, euh, tout le monde l'attendait plus, plus, plus, que ça. Ouais, plus que ça. Mais bon, c'est. Mais là, c'est en tant que compétiteur. Bon, jàng naa si lu bëri parce que voilà moi-même je m'attendais pas ma dem euh, jouer si début mais bon après dañoo dem rek coach bi def ma confiance muy si si premier match bi bon ça a été une surprise pour moi parce que si vestiaire bi laa ko yëg teelu ma woon yëg après voilà motivation yi si ñëw si sama grand yi la jógee moom Koulibaly Sadio Mané ñoo ma motivé yow et voilà jàng si seen expérience voilà kan bi servir na ma lu bëri c'est vrai que après kan bi sama niveau bi dafa xaw a wàcc tuuti si ligue am mais bon. coono gi la woon ou bien enchaînement compétition yi. bon je dirais que enchaînement compétition yi la parce que ça a été tellement ça a été difficile parce que dama dem troisième trois deuxième jour deuxième jour bi laa joué donc ça a été difficile si côté récupération bi. ok alors euh, quand même euh, Lamine il y a il y a une grosse attente autour de votre personne tout le monde parle de votre potentiel et cetera comment vous gérez tout ça et puis est-ce que vous êtes encore plus plus que jamais concentré sur l'objectif maanaam Lamine fi koy séntu dafa sori. bon vu ce qui s'est passé aujourd'hui là booy di booy di topp sa ginnaaw ça prouve que voilà ñu maintenant tu es connu maintenant ça y est joué ça les gens attendent de toi que tu fasses mieux mais bon euh, motivation la si man parce que voilà je vais je juste me servir à ça voilà pour gën a pousser pour gën a pousser son bopp si si kaw. et eh, voilà damay gën a yokk liggéey bi sama côté góorgóor waaye gën a yokk liggéey bi sama côté et voilà gën a améliorer rek. ok lan mooy piste yi nag de départ yi xam nañ ni vous êtes annoncé partout vous allez pas nous faire une exclusivité mais <laughs> est-ce que ça sonne de partout est-ce que voilà. bon oh, c'est vrai qu'il y a des clubs mais bon rien n'est encore décidé je suis à Metz pour l'instant et voilà préparation bi damay dellu foofu. Mais bon, après, on verra ce, ce qui va se passer. Parfait, merci. merci.